bismillah alhamdulillahi wa kafa wasalaamaani ala almustafa wa ala wa sahbihi wa man an alcheikh alxadimi qaadallahu maxtaara lahu eh, mbokki jullit yeeg mbokki seen yóbbalu biñ leen baaxoo amalal tey ñu toll ci bindub juróom ñaareel bi fan ñu ngi woon ci seenu weer wi ak ya ca aju mu mel ne bu nu seenoo weer wi nag ba gis ko weeru koor day daal di dugg si waaye buñ ko seenoo gisuñu ko bis boobee nga xam ne xëy na dafa bari ay niir ba mëneesu koo gis dañuy jàpp ne boobu yow mu sakki lañ koy tuddee ci fiq maanaam yow mu sakki mooy bis boo xam ne moom dañuy sikk sàkka ndax fanweereelu fan lay doon ci weeru baraxlu wala ndax xay xal set na nekk benn fan ci weeru koor loolu mooy yow mu sakki maanaam seenu nan weer wi asamaan ci lëndëm na ba kenn mënu koo gis ñu naa kon nag dañuy def la xadis ba waxoon mooy fa in ghumma aleykum fa akmilul iddatan na ngeen matal weeru saxmbaan ba mat fan weer bis boobu nag léeg-léeg dañuy xëy suba tàmbalee def yëfi njóobeen defe na weero wa feeñut ndekete weer wa feeñ na léeg-léeg it mu bañ a feeñ waaye waxalaa kulli xaalim bis boobu bisub sikk sàkk la ndax mën naa am mu nekk fan weereelu fan ci baraxlu mën naa amit ñu xëy suba yëg ne te weeru feeñoon na nga xam ne kon mooy benn fanu weeru koor loolu ñu tëddee yow mu sakki <clears throat> yow mu sakki boobu nag eh, yoon day tere ku ko woor rawatina nga bëgg koo woor ngir ne ah man daal naa woor rek su ma xëyee suba bu fekkee nee nu dafa bokk ci weeru koor ma xam ne man wooroon naa bu fekkee bokku ci ma far ko def naafila wala yu mel noonu kooku wérut kooku du dagan xadis <coughs> ba sax dafa waxoon ne man sooma yow mu shakki faqad asa abal xaasim koor bis boo xam ne dañuy sikk sàkk ndax dana bokk ci koor gim deet nee na mooy nga yonantu bi alayhi salaatu wasalaam <coughs> waaye teewul fuqahaa yi nee na nu bu dee koo xam ne day woor kooru ko bis boobu mën na ko woor baax niki koo xam ne dafa fas yéene woon a woor Eh, maanaa weeru baraxlu wépp eh, weeru baraxlu wépp mu ne fas yéene naa kaa woor kooka kon bu wooree ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent benn fan ba koy desee ñu seen weeru yi mu xaw a lëndam mën na ko boole ca koor ga naka noonu ko amoon boru weeru koor wala jàll woo xam ne fayu ko ko bis boobu mën na koo woor ngir fayee ko ko naka noonu koo xam ne dafa waroon a kafaara wala koo xam ne dafa nisaroon nisar boo xam ne xayra euh, muayin la maanaam euh, ni ki mu waxoon ne mankat sama baay ba tukki nekk ci ay jafe-jafe su ko su ma ko yàlla indilaate ak jàmm nisar naa nisar naa woor benn fan waaye wut nag benn fan dene saa yu ñibbisee rek bis bu mu ñibbisee daal bis boobu dinaa ko woor kooku bu yàlla dogalee waajuram woowu ñibbisi ci bis boobu mu yow mu sakki ñu seenu weeru gisuñu ko bu ko neexee mu yéene ko woor <coughs> euh, waaye yëpp nag boo ci woor yàlla dogal ñu xëy suba mu bokk ci weeru koor ñu xëy suba ñu yëg ne tey weeru koor feeñoon na nun noo ko gisutoon rek wala waa dëkk bii ñoo ko gisutoon waaye dëkk ba ñu dendal gis nañ ko su boobaa yee yëpp day yàqoo kon du doy ca du doy ca la nga yéene woon bu njëkk ba waaye du doy it bisu koor gi maanaam dañoo seen weer wi gisuñu ko nga ne kon naa fay weeru koor wa ma amee woon ca weer wee jàll naa fay bis ba bis ba ma amoon ci weeru koor wee jàll nga jàpp xëy suba tàmbalee woor ndekete démb ñun ñoo ko gisut waaye dëkk bii ñu dendal gis nan ko su boobaa koor ga nga doon fay yàqu na te it du doy ci weeru koor gii nga nekk kon du ci doy benn naka noonu ci ki nga xam ne moo ko nisaroon ak ki doon euh, yooyu yëpp ñoo ci yem du ci wér ci benn <coughs> euh, dagan na ci ki nga xam ne dafa ñibbisi jóge ci ab tukki koo xam ne dafa tukki woon nga xam ne yoon may na ko mu bañ a woor kooku dagan na ci moom bu ñibbisee ci bëccëgu weeru koor dajanteeg soxnaam dajanteeg soxnaam gisoon deret ba deret ja dog kooku dagan na ñoom ñaar ñu ànd maanaa ñu jaxasoo maanaa ki nga xam ne dafa tukki woon léeg-léeg sax gaa yi dañ koy faral di lépp naan ki nga xam ne dafa joteeg soxnaam ci bëccëgu weeru koor te dara fekku ko ca dañ koy cax maanaa yow mi nga xam ne danga ngaa nekk ci tukki yoon may na la nga bañ a woor yoon may dal nga bay nga bañ a donte ci masabu imaamu maalik sax dañuy wax naan kooka lañ gën a sopp ci moom mooy mu war ndax alquran moo ne wa an tasuumu xayrun lakum bu fekkee mën ngeen a woor day moo gën bu ngeen di tukki may nañ leen ngeen bañ a woor waaye ku ci mën a woor moo gën waaye teewul rek kooku moom bu ñibbisee ci bëccëgu weeru koor te fekk wóorutoon ndax yoon mayoon na ko mu ñëw dajanteeg soxnaam moom it gisoon te ba ci bëcc ba ci bëccëgu weeru koor soxna sa set ñoom ñaar mën nañoo jaxasoo Eh, naka noonu bu fekkee ne da ngaa am soxna soo xam ne du ab julit soxna soo xam ne du ab jullit ne kii da ngaa takk ab chrétien wala ab ab juif eh, yàlla dogal ñoom loola bokkul seen koor dagan na tamit nga jaxa soog moom waaye bu fekkee nag da ngaa takk ku dul ab jullit eh, yow wóoroo ndax da ngaa jóge jub tukki wala da ngaa feebar wala lu mu mën a doon yàlla dogal nga ñëw moom nga fekk ko mu nekk ci koor goo xam ne seen kooru diine la <clears throat> maanaam nga xam ne ñoom seenu koor dafa tombeek weeru koor kon yow góor gi bis boo jógee cib tukki ñëw nga xam ne wóoroo doo sañ a soxna sax <clears throat> déedéet am na ay boroom xam-xam yu koy wax nag waaye li gën a wér ci mazhab bi boo demee asbax euh, moom la wax euh, ibnu xaasim ibnu rushdin ñoom ñëpp nee nañ euh, laysa lahu an yamnaaha min at-tasharru'i bi diiniha maanaam boo amee sa soxna muy topp diineem sa yàq ak kooram ci bëgg a jaxasoog moom loolu doo ko sañ moo tax loolu noonu rek la demee bokk na ci yi ñu sopp ci weeru koor muy kaful lisaani anil fuduli maanaa boo wooree ngay bañ a wax waxi caaxaan waxi caaxaan yooyu nag boo ko déggee ñu koy wax mooy daa fekk ne muy wax joo xam ne amut njariñ loola loola dañ koo sip nga di ko def ci weeru koor ay waxi caaxaan ak yooyu waaye bu fekkee wax ju xaraam moom kooku xam ngeen ne dafa xaraam kooku moo xam ci weeru koor moo xam ci lu dul weeru koor laata weer wi ñëw dafa fekkoon mu xaraam moo tax kooku moom taxul ñuy wax kaful li anil fudul fudul mooy wax joo xam ne xëy na doo ci am bakkaar waaye doo ci jëlee tuyaaba dañuy bëgg boo wooree daal eh, ndugg ci jàngum xasida yeeg eh, jàng alquran beeg eh, salaat ala nabi yeeg yooyu te bañ koo bañ a bàyyi noonu <coughs> bu dee wax ju xaraam moom nañ ko na mu xaraame woon ci bu dul weeru ko rek noonu la xaraame ba léegi naka noonu bokk na ci lañu ñu sopp te sax sunna la mooy boo wooree bu jant bi soo ci saasa rek nga gaaw dog bañ koo yeexee naan damay xaar ba ñu julli ba noppeeg damay xaar nangam déedéet tumma atimu siyaama ilal layli boo waree ba jant bi soo euh, dégg nga na nga gaaw dog bala ngaa julli qabla salaati euh, waaye nag bëgguñ nag nga nga defa def dogu njóobeen maanaa euh, dog rek toog fa di lekk lekk lekk bañ julli ba nafila ba noppi nga doog a jóg doog a jublu sa julli kooku nag baaxut weeru koo dañ ciy wute tuyaaba waaye doo ci wàññi sa tuyaaba te bokk na ci loolu mooy topp ay lekk ba mu yàqal la waxtu julli timis bi loolu baaxut naka noonu bokk na ci li ñu sopp mooy it nga yéex a xëdd xam nga xëdd dañuy wax ne boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj ba buñ ca àggee rek xëdd jot na maanaam bu la neexee tàmbalee xëdd waaye dañuy sopp nga yéexe ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne dara yéexe xëdd ba nga xam ne day xaar ba nga xam ne salaatu lu tolloog maanaa ay minute moo ci des loo xam ne mënees na cee jànge ñiin fukki aaye alquran yoo xam ne da koy jàng-jàng mu sell lu mel ne suuratu naba yi amma yatasaaluun ku ko doon jàng njàng moo xam ne day indi atte yeeg ahkaam yeeg yëpp di ko respecté njàng moo xam ne du njàngum farax-farax nga di ko jàng ba mu àgg diggante bu toll noonu daana day xëdd xaar nga xam ne diggante bu toll noonu moo ciy des ñu doog a ñu doog a salaatu kon dañuy bëgg nga xaar ba nga xam ne salaatu ci misaal ay 10 minutes moo ci des nga doog xëdd nga xam ne boo xëddee rek daanaka da ngay jóg jàpp def li ngay def rek daanaka julli daal di jot loolu la ñu sopp <coughs> waaye ku ko mën a teelet ba tey def nga lu baax waaye sunna sa daal mooy yeexe ko ndax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def bokk na ci li ñu sopp mooy booy dog ci weeru koor nga dogee lu tooy nga dogee lu tooy ni ki tàndarma loolu sax mooy sunna te booy dog it nga dogee ca benn nga dog moom an yakuna witran mu tóol nga dogee ca benn eh, bañ a def fu njóobi ni jël yu bari rek eh, dégg nga seexandoo nga dogee lu tooy ni ki tàndarma te bu fekkee tàndarma la loolu la ci gën a sopp na tool wala lu mel ne ndoxum sam-sam wala yu mel noonu bu fekkee amoo tàndarma nga def guux benn guuxu dara rek moo xam guux la boo xam ne guuxu ndox la wala muy guuxu café wala bisaab wala lu mën a doon waaye na nekk rek lu tooy looloo sopp nañ ko ci sopp nañu tamit booy dog nga wax baat yooyu ñëwoon ci xaddis ma muy allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu faxfir li ma xaddamtu wa ma aqartu nga ne yow yàlla yow de yaa ma dimbali ba ma mën a woor eh, yaa ma dimbalit ba ma am ngam yàlla gi yaa ma dimbali ci bi ma dogee ba woor jotit nga jox ma lu ma ndogoo wa ala risqika aftartu yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar yu njëkk ak samay bakkaar yu mujj daa di wax dahaba samau wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insha allah ña daa ma maroon ci digg bëccëg ga day fintool ni dem na jeex na du dara ab bu gàtt rek la euh, dégg nga euh, waaye sama bëli yi nga xam ne dafa wowoon lépp ngir bëgg a naan bëgg a lekk fintool nii tooy na tooyal naa ko daan na te fintool nii kat li ci gën a neex mooy am naa ci sama toyaaba mooy coono ba ma dajoon ci bëccëg bépp fi mu toll nii jeex na lépp luñ ma tere woon sañ naa koo def te teewul maa nga denc sama toyaaba loolu wax na alayhi salaatu wasalaam euh, daana daanako wax euh, euh, bokk na ci li ñu sib nag te nga xam ne sopp nañ ko ba léegi mooy nit ki di bañ a xëdd loola dañ koy tere nit ki di bañ a xëdd ndax yonent ba daa wax ne tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd barke ci nekk am na beneen xadis boo xam dafa wax ne diggante koor gi nga xam ne ni ñu njëkk ña daanañ ko woor ci yeneen diine yi ak sunu koor gi li leen wutale rek mooy xëdd mooy xëdd kon loolu boo ko defee day tax tuyaaba ci yokk incha allahu kon xam naa agsi nañ fi ñuy yëkkatee jotaay bi bu subaa ñu àggale dugg ci bis yi nga xam ne sopp nanu ko ko woor ndax bari na tuyaaba lool ak la ca tege incha allahu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bul fàttee abonné bul fàttee abonné. bul fàttee abonné